comme ni que grand pa bu waxee léegi léegi nii euh, doomu dëkk tam day bëgg dëkkam ndax tey jii bi ma rombee fii ñu ni ma Sonacos moo nekk nii sama yaram dafa daw ndax ay ñoom Karim Sey jaar nañ fi ay grands jours yu nga xam ne Saint-Louis leen dëkkoon ñun dañu doon euh, révélo kon nag doomu Diourbel war ñu bàyyi Sonacos euh, delluwul ci place bi moo nekkoon ndax tey ni ñuy tuddee Jaraaf ni ñuy tuddee Linguère ni ñuy tuddee Ja foofu tey jii la waa waa Diourbel yëpp wala jàppandoo bokk ndey bokk bàyyi di soqali Sonacos ba nga xam ne tey jii équipe ba mu nekkoon équipe bu daan fay rêver équipe bi nga xam ne moo daan fay xaalis bu bëri ci football Sénégal dellu fa parce que c'est important ndax am na xale yu nga xam ne tey jii Sonacos fii la ñu juddoo man c'est une bi ma gën am sama àdduna moo di Linguère de saint bi ma jaar ndax ndar laa jëkk ndar laa yaroo ndar laa defee lépp donc c'est important yéen waa Diourbel ak doomu Diourbel fu mën dekk ngeen booloo nekk benn soqali football ndar comme ni ma ko bëggee ci football Saint-Louis une ville un club ndax ville bu am mu doole bu nga xam ne ay club yu bëri tamit dañuy sonalaate na ñëpp jàppaloo Diourbel am benn club rek muy euh, Sonacos ñëpp jàpp ci ngeen avancé comme Saint-Louis ñu tas yeneen équipe yëpp bu fekkee Ndar Géej leen koy tuddee wala leneen leen koy tudde pour équipe yi mën am doole suñu équipe yi nekk fii tamit euh, dans le championnat Sénégal si noonu la ñuy mën a am ndam di football ay Champions League africaine